loolu moo gën a fës ba tax na dañ koy tàmbalee ak heure vingt 24 heures nga xamante ne moom mooy euh, yéenekaay bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Global Média moom it ci xëtam bu njëkk euh, gis nga nee na kii di Ousmane Sonko nag Pastef euh, autant pour moi euh, yëkëti nañu seen loxo ca kaw ndax ndam li nga xamante ne eh, njortogun nañ ko maanaam résultat provisoire yi li nga xamante ne eh, jotogun na ko ci li nga xam ne moom élection législative yi eh, mi ngi xam le ni que kii di barthélémy diaz nag moom dafa perdre fi nga xamante ne moom bureau de votam Eh, kii di bugaan gay dani moom dafa maanaam mëq suuf si mor la poussière dafa mëq suuf si anta baaba kawr ngom moom it moom dañ ko yóbbu kaw ba mu dem bi loolu eh, ki nga xamante ne moom di 24 heures eh, fësal waaye nag ci suuf ñu ngi fiy lu soxal wàllum verdict bi nga xamante ne moo génn ci ak abbas fall nag jamono ji moom moo nouveau patron wu Abass Fall donc bataille bi nga xamante ne moo doon dox ci diggante euh, Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ne moom moo di Abass Fall nag gagné na li nga xamante ne moom moo di la bataille de Dakar mm-hmm. alors bu ñu fa jógee dañuy dem ci libération libération moom it euh, ci biir xëtam gis nañu Pastef le coup KO moom la xëy tiitaree ak rek li ma doon wax léegi Abbas Fall la bataille de Dakar remporte la bataille de maanaam moom moo gagné li nga xamante ne moom moo euh, jongante bi amoon ci diggante mag Barthélémy Dias fii ci euh, Ndakaaru ba tax na nag kii ci biir xët bi nga xam ne moo di libération dañ ciy gis leneen moom moo di euh, dañu ubbiwaat ab beneen xët ginnaaw ay témoignages yoo xamante ne euh, nemmeeku nañ ko ci affaire bi nga xamante ne moom moo jëm ci banjaak bi nga xamante ne euh, ba léegi mi ngi ci loxoy yoon ba tax na nag ay yeneen révélation ak témoignages yoo xamante ne gis nañ ko ci ki nga xamante ne moom moo di bàcc ba nekk ñu gën ko xamee ci mbës moom mu nekk ci écrit booy ñaa moom it euh, dig déglu na ko ki nga xamante ne moo di Dof Ndeye moom it dañ ko war a euh, déglu euh, luñ koy toppee nag jamono ji moom mooy ay armes yoo xamante ne dañu def ay témoignages wax ne daf ko doon yor ci période campagne yi ab nervi lañ ko lañ ko doon. lañ koy jiiñ moom ngi nga xamante ne moom moo di euh, Jérôme euh, Bandiaki bi nga xamante ne nekkoon na ci euh, élément yu nervi yi nga xamante ne jàpp nañ ñoo nekk doon ànd ak kii di njiitum réew mi Macky Sall bu ñu fa jógee dañuy dem ci les échos les échos moom it ñëw ci victoire bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko moom noonu la ko tuddee parce que nee na askan wi ñoo jox lépp ki nga xamante ne moom moo di Sonko. pour man su affaire yi génnagul suñ suñ fan mantal voilà ay ay résultats provisoires la. maanaam sagar daa tàmbalee xeeñ daal. va non sagar kay xeeñ na. xeeñ na parce que ay euh, résultats provisoires moom moo génnagul. dem na ba ci li nga xamante ne moom moo di ñi ngi jàpp ni que ni cent vingt quatre seize waa PASTEF war nañ ko am ci assemblée nationale. donc loolu bu ñu ko waxee maanaam euh, presse bi démb ba ñu defee li nga xamante moo di recoupement yi.

Euh, Farba Ngom moom moo gagné fi nga xamante ne moom moo di añam te Sonko daf ko waxoon ni que ni nag euh, dootul campagne <laughs> dootul <laughs> campagne ati. xam nga campagne looloo ci neex. dafay bëri ay ay waxante. Uh-huh. voilà gis nga léegi nag moom mi ngi wax ni que ni Sonko nag euh, jël na li nga xamante ne moom moo di majorité am ci fi nga xam ne moo di assemblée nationale. dañuy dem ci le soleil moom it muy gën a confirmer. Euh, li nga xamante ne moom moo di victoire euh, Pastef bi gis ngeen ko waaye nag ci suuf euh, gis nañ fi hommage boo xamante ne UNESCO daf koy rendre ki nga xamante ne moom moo di Amadou maxtar Mbow mi nga xamante ne bibliothèque la ci Sénégal moom it nga xamante ne servir na UNESCO servir na Sénégal nekkoon na fi ministre moo tax waa UNESCO doon ko sargal lu soxal wàllum COP 29 bi nga xamantene ci lañ né walum financement ci lu jëm rek ci walum climat euh, ñu soxla lu tollu ci 1000 milliards ci dollars aduna bi ngir ñu mëna xex li nga xamantene mom modi réchauffement euh, climatique bi. Euh, bu fa jógee dañuy dem ci l'indépendance l'indépendance. momit gis nga razia bi nga xamantene ne Pastef def na ko ci élection yi ci ci lay ñëwaat waaye nag ci suuf dafa ñëw ci. Euh, Mali dafa dem ci Mali nga xamante fofu lu soxal walum transition bi deux ans yi nga xamante ne bi bi euh, dañ ko lajone ki di premier ministre bi nak mi ngi len koy fatali mom mi ngi fa nek premier ministre de transition bi mi ngi len wax euh li ngeen xamante mom yeen lajone manam 2 ans de transition yi jotna kon nak il faut que ñu amal ay élection mom mi ngi xamle li ni mel premier ministre bu Mali buñ fa jógee dañuy dem ci la tribune euh, la tribune euh, fofu gis nañ ci xët bu njëkk ba ki nga xamante ne ba tey moom moo Ousmane Sonko waye Bougane Gueye Dany mi nga xamante euh dafa féliciter ki di Ousmane Sonko ak Pastef ginnaw rek bi nga xamante euh victoire bi daanu na. Bougane da féliciter mo njëkk féliciter nak ah Bougane <laughs> teel a lay yomb. non du question de teel a c'est que Bougane a compris une chose que beaucoup beaucoup n'ont pas compris ça c'est un jeu démocratique. waaw voilà ci jeu démocratique lañ man moomuma nit ñi keneen momul nit ñi nit ñi dañuy xool ku leen neex ñu sandul ko seen carte machallah motax moo tax Sénégal foofu la rawee dëkk yu bari mhm, mhm. buñu démé ci ay jongante buñu paré da ngay gis ni que ni ku daan mhm. day féliciter ñoo bokk ndey ñoo bokk baay adversité la pas animosité c'est important motax félicitations euh, euh, félicitation euh, bu mu adressé wa Pastef c'est c'est c'est c'est c'est c'est très salué ndax moom moo njëkk bind ci page Facebook am euh, communiqué di féliciter ñi nga xamantene ñom ñoo di wa Pastef ci sen euh, victoire bi voilà buñ fa jógee dañuy dem ci euh, ci critique critique mom Euh, ñëw na ba tey mais moom xam nga kan la jaajëfal maanaam wàllum organisation bi nga xamante ne am nañ ko def nañ ko euh, ci élection yi moo tax ñoom dañu def chapeau bas ki nga xamante ne moom mooy directeur général des élections euh, di Birame Sène moom la ñu jafal chapeau bas ci li nga xamante ne maanaam wàllum organisation bi nga xamante ne jàpp nañ ni que ni vraiment jaar na yoon donc moo tax ñoom moom la ñu defal chapeau ba ci lu soxal mais nag ouragan Pastef bi moom bale na lépp mm-hmm.

jouer mais dañu def un jeu de mots euh, ci walum euh, titre bi nga xamantene bind nañ ko euh, ci lu soxal walum politique bi jamono ji nak japp nañ ni que ni ki nga xamantene mom modi Ousmane Sonko mom moy le maître du jeu ci scène politique bi ba taxna ñom ñoom Pastef crédité de 124 sièges au minimum waaw mën na am 124 sièges ci assemblée nationale bu néewee ba néew maanaam téeméer hein. Pastef Pastef ah Pastef voilà 124. voilà téeméer ak ñaar fukk ak ñent ci ay 16 euh, foofu ah, ci assemblée nationale ah, bu newé ba new bu newé ba new bu newé ba new ah. ñom lool lool lañu xamlé Euh, donc euh, mu nekk nag loo xamante ni vraiment euh, lu lu ngande la maa ngi ko doon wax sànq Omar Anne moom it xam nga mi ngi réclamer victoire foofu noonu ca département bu Podor Farba Ngom Thien Matam Farba Ngom tamit vraiment mi ngi dëggal boppam ca doyenu Matam moom moo tax ba ñuy wax ni que ni sax fu Macky Sall boobu noonu ca doyenu Matam day continuer di nekk titre foncier Macky Sall ndax Farba Ngom aussi dafa battre campagne te gagné foofu nga xamante ne moom moo di Matam Matam bu fa jógee dañuy dem ci le peuple le peuple momit. it euh, foofu nag dañuy gis ay contestation yo xamantene dafa ñël ci walum euh, élection yi takku walu ñom dañoo bëgg nak euh, li nga xamantene mom moy élection yi amoon démb ñu annulé ko. ah annulé ko. waaw ñu annulé ko. sëñ Moustapha élection yi amone dembu. taxawalu nee nañ nañ ko annulé. parce ñu gis nee nañ ay irrégularité ci élection yi. Euh, gis nañ ne que ne am na ay sabotage ci wàllum scrutin beeg yi ni mel surtout rawatina ci doonu Touba ak gox yi ko. waaw waa waa Famanta waa taxawalu leen jëral lii tamit élection yi ñun gis nañ ni que ah jàpp nañ ni que jaar na ci yoon. parce que hmm. bu dul dara sama jàmm ji ci am. Hmm. nga xam day raar nga gis euh, lu mel nii. Hmm. gisoo xeex gisoo dara man démb ba may vote ji dama dem vote ji macha allah ci dal. ñibbisiwaat sama kër ci jàmm.

li am wax lu dëgg nit day nekk ci bitéew biddéew doomu aadama euh, léeg-léeg suñu borom da koy teg loxo tey ku yàlla teg loxo nag kenn ah, ah. na dem nit ah, aadama day nangu alors dañu dem ca source A euh, source A moom it euh, nga ba tey dañuy ñëwati rek ci li nga xamante ni moom la quotidien yëpp xëy euh, titre yi moom euh, lu mu xamle moom moo di euh, gars yi dañoo fay seen i lampe te dem tëddi voilà Sonko tireur d'élite la tireur en série la maanaam waajoo xamante ne fu mu romb daal kenn dootu ko téye moom daal nee na gars yi nañ dem fay seen lampe. ku wax loolu Sonko. waaw source a ah daal xam naa ne. voilà te xoolal mi ngi def ci ci ci bu njëkk ngay gis photo Macky photo Amadou Ba photo euh, ki nga xamante mooy Barthélémy Diaz ak euh, kii di Karim Wade. Euh, ñu dem ci éco vert éco vert sànq maa ngi ko doon wax ci lu soxal wàllum réchauffement climatique bi ak 6 yi nga xamante ne jël nañ ko pour asir loolu nag ku moyul nag dina am ab.

dañ koy jeexalee ak laas laas lañ koy jeexalee rek nga xamante ne ba tey ci la ci la ñëw mais laas it dafa dafa ñëw euh, ci benn affaire boo xamante ne euh, dafa am solo euh, moo tax ma ma gën ci taxaw parce que révélation la ci élection législative yi maanaam Nafoore Sénégal bañ na ko ba turu pulaar la ñoom ca commune bi nga xamante ne moo di Missirah au moins def nañ fa exploit gagné nañ ko

ci li nga xamante ne moo di mutisme bu Idrissa Seck nga xamante ne ñëpp xamoon nañ ko ci seen politique bi mais jamono ji dafa mel ni ku xaw a éclipsé alors lii moo fi ruusoon ci li nga xamante ne moom moo di li gën a fës ci xëtu yéenekaay soxna Idia